salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum waa àdduna bi tey nag vidéo bi may def nii nii nii nii dama ci ànd ak del ànd ceeg respect ànd ceeg yar duma saaga kenn duma dépasser kenn yaa ngi dégg mais benn affaire laa leen di waxal Wally sekk dafa sonn Wally sekk dafa tàyyi trop c'est trop mënatuñu koo supporter man aadama bokk ak ñëpp ñi nga xamante si nii bëgg nañ Wally dootuñu permettre doomu aadama nga jóg ci deru Wally Seck bi di ci teg lu bon loo xamante ni defu ko wala ngay wax loo xamante si nii tegoo ci sa bët doomu aadama da ngay maandu mosul leen a fekk Wally Seck def yëfu góor jigéen mosul leen a fekk Wally Seck di promouvoir ay góor jigéen mosul leen a gis Wally Seck ànd ak góor jigéen mosul leen a gis Wally Seck di di lekk xaalisu góor jigéen mosul leen a gis góor jigéen buy financé Wally Seck trop c'est génn na nag def na vidéo bu tout saabul touché na ma touché ñëpp vidéo bu doy waar parce que Wally ba papam génne àdduna yàggul que alxuraan karim ñu di ko ñaanal di ko jooyte noppeeguñu ah ngeen jël booy bi ba koo dibi ba koo lekk ah conseil ko di xaar tabaski jot ngeen génnee ko duñ ko may kenn Wally kenn du ko dibi kenn du ko musuwee bala nga koo musuwee yow la nit ko musuwee bala nga koo conseillé fekk na yow ak sa famille conseillé ngeen bu yàgg dootuñu ko permettre kenn ci àdduna bi président wak ministre rek ensemble ak ñi ciy wax nag waxuma ak ñoom Abdou Karim Gueye benn ci moom benn ci moom xol bee bon opéré na xol bi sept fois ci Wally Seck la sa xol bi nag di jaaree masakaraare ba faw boo ko bàyyiwul booy bi kaani la dafay wax xat dara mënul leen ko wees soow moom du wax ay waxam kooku dafa tux ba tuñ yi am ay hémorroïdes awma lu ma koy tontu. li may wax daal mooy sosal doomu aadama waxal doomu aadama ci loo xamante si nii defu ko dafa ñaaw trop lu ngeen di wax da ngeen indi preuve da ngeen di teg ci taabal ji lu leer da ngeen dem bay wax da di teg lu leer ngeen ne lii maa ko gis lii nangam indi ay preuve teg waxi kese du lool de preuve man preuve laa xam man monsieur le juge da ngay wax nga indi ay preuve nga teg mais di taralari rek di taralari di wax nii rek amoo preuve amoo dara dafa yomb dafa yomb Abdou Karim ah kii moo nekk ci ginnaaw moo gétt moo ko jëndal téléphone bi mu yore moo ko jëndal di ko financé xaalis pour muy contre Wally Seck doomu aadama da ngay liggéey nga gëm sa bopp am loo gëm mais topp ci benn nit Wally Seck guddi Wally Seck bëccëg Wally Seck soir comme Wally Seck rek nit la kilifa la responsable la dafa am njaboot am jabar am yaay am papa am ay rak am ay nawle am ay noon bàyyi leen xale bi mu liggéey nekk ci yoonam bàyyi leen ko mu liggéey nekk ci yoonam trop c'est turo trop c'est trop sénégalais yi lan la lu ngeen bëgg yéen ay kan ak lu ngeen bëggal waale booy bi deewoogu léegi de dina dund ay ati ati ati ati at bu naroon na dee sax mu leer nañu bis bi lay dee dinañ dajale ñun ñi ko bëgg suñuy at ñun ñëpp jox ko ko waale seen continuer dund di wayal di bëggal sénégalais yi musique bi avancé ñun ñu faatu fa yàllaaw demagul léegi de ay demu ngeen mënu leen ci moom dara man maxtaar ka sa doom bi nekk fële di cagatu Amérique waxal ci loolu sa doom baa ngi noonu di sol kenn xamul lu muy sol mi ngi mel ne kirnaa xool ko bu baax comme yoo bu nu bu nu bu nu boroset boo ko gisee nii ak ak ak kii ak yu bonam ñi muy sol waxal ci loolu fii la sa doom génn maam Matar ah palais Saint-Valentin dem defe ji lu bon wax coow li bari nga daggal ko ba yóbbu ko Amérique ne ko cas gaa yi waxuñu nga topp Waly sekk mi nga xam ne sa moroomu doom la ñàkk fayda di pilente wax ci Waly Seck te am loo war a yi lu ngeen fi liggéey lan ngeen fi def defu leen fi dara di chaque jour problème yaa ngi am fii Sénégal ñuy violé xale yu ndaw yi di violé jigéen ñi mënu leen koo régler topp benn nit Waly Seck Waly Seck Waly Seck sa doom a gën a bon foofu ci àdduna bi Waly sekk nit ku baax la nit ku responsable la nit ku gëm boppam la ku baax ku rafet xol ku rafet xol mooy Wally Seck mindeef gënu ko ci àdduna bi nit ku baax ku ko jàpp jàpp ku baax jàpp ku mën a woy jàpp ku rafet xol waaw ku yaru te maandu du dugg ci yëfu kenn mosu leen koo génn nag wax ji bëri na lool turo see turo moo tax mu génn sax def vidéo mais moomeewul wax du nitu waxkat du koy taxaw ci ay écran di tontante du koy taxaw ci écran dañuy teem sax ma yëgoo ko mais trop c'est trop looloo tax mu génn wax may leen ko jàmm may leen ko salaam mag ji moom dafa ñàkk dafa ñàkk jom kooku moom li ma ko fi wan mu ñàkkaat jom nangu naa ngeen wax de man d'accord naa mais dama bëgg kuy wax nga indi ay preuve wala loo teg sa bët nga gis ko walla loo xamante si nii boog ah yaa ko fekke wala yoo xamante si boog dalal lañ cent pour cent nga doo ko wax amoo leen preuve amoo leen tos ci li ngeen di wax di dara la di wax rek jël deru Wally Seck bi loolu ngeen teg ko ci non non non non non duñ ko permettre kenn on ne la permettre plus personne Wally sekk moom ci nii wala ci naa Sénégalais yi dinañ ko may jàmm waaw ma ne guerre bi dafa commencé commencé na guerre bi instant bi nii commencé na man man ak fan su Wally Seck yëpp ak staff Wally ñi bëgg Wally sekk yëpp. dootuñu permettre mbindeef muy génne di teg ci deru faramarin bii loo xamante si nii defu ko te amoo ci preuve mbindeef dafa jeex dafa doy on est marre kuy concurrence ak Wally Seck wala nga koy ñëwal ci musique bi képp koo xam ne danga nga bëgg a contre defee ko musique da ngeen ko bëgg a daaneel na doon affaire musicale bu ngeen ko bëggee daaneel na doon affaire de musicale mais baat ko tuumaal ay LGBT ay góor jigéen non nan leen ko teg ci musique ku ne xam nga koy sa papa ku ne Wally Seck moom ci nii wala ci naa Sénégalais yi dinañ ko may jàmm waaw ma ne guerre bi dafa commencé commencé na guerre bi instant bi nii commencé na man man ak fan su Wally Seck yépp ak staff Wally ñu bëgg Wally Seck yépp dootuñu permettre mindeef muy génn di teg ci deru faramarine bi loo xamante si nii defu ko te amoo ci preuve mbindeef dafa jeex dafa doy on est marre kuy concurrence ak Wally Seck wala nga koy ñëwal ci musique bi képp koo xam ne danga bëgg a contre Wally defee ko musique da ngeen ko bëgg a na doon affaire musicale bu ngeen ko bëggee daaneel na doon affaire de musicale mais baatu ko tuumaal ay LGBT ay góor jigéen non nan leen ko teg ci musique ku ne xam nga koy sa pàpp ku ne xam nga koy sa baay ku ne xam nga kan moo la a way ku nekk xam nga kii bu yuuxoo nga xam ne way ka dëgg mooy wax nan ko teg ci cadre musique nan ko teg ci cadre musique rek léegi wax ji leer pas di jël nit di ko tuumaal wala di teg ci daram bi loo xam ne dafa ñaaw ah non non non non ko teg ci cadre musique man nag man Adamo du ma permettre kenn kenn du man kese de ñëpp ñu bëgg waali nga jàpp waali sekk di ko wax lu ne mais waali waali waali waali dafa sonn sonn na Wally sonn na mënoo nekk di wax suba ngoon ci benn nit ki suba ngoon ci benn nit ki di wax li ngay wax dana leeru ci bon ngeen soxor ngeen iñaan ngeen booy bi kenn du ko te dem dafa nekk ci yoon day liggéey kenn mënu koo tee dem wax wax bàyyi ba ngeen dalee wax depuis 2016 yéen a ngi wax ci booy bii nii 2016 ba tey yéen a ngi koy tuumaal yii di yàq deram ba tey ñu ngi ci deux mille ñu ngi ci deux mille vingt et di waaj a dugg deux mille vingt deux gu leen sonal booy bi nii rek non non non non c'est trop dootuñu ko permettre kenn Wally Seck du góor jigéen bokkul famille góor jigéen xamul góor jigéen du ànd góor jigéen doxul ci loolu sax nit ku baax la mooy sunu waykat moom la ñu bëgg peuple bi moom leen bëgg jeunesse bi moom leen bëgg mu neex leen mu naqari leen Wally Seck moo fi nekk Wally Seck yow yaa fi nekk góor góorgóorlu nekk sa yoon liggéey bul wax ak nit képp ku dérapé wax loo wëtt wax man dinaa génn dal sa kaw wax ak yow permettre ko kenn trop c'est trop jeex na Adamo la merci beaucoup gars yi wasalaam